Euh, maître ñu gis ni que cour des comptes génne na seen rapport 2015 2016 ak 2017 ñu ciy tugg tudd ñoo xamante ne dañu euh, jege président Macky Sall euh, mais ba tey kenn inquiété wu leen alors est-ce que méngoo na ak li président Macky Sall doon wax ci wàllub gouvernance bi muy def campagne am. waaw laaj bi am na solo pour tontu laaj bi mbir mi yomb na parce que Macky ba muy laaj. boppu réew mi en 2012 lu nekkoon sensu engagement bi euh, reddition des comptes ci la bokkoon euh, reddition des comptes boobu bu ñu xoolee nu CREI doxe déjà avant ñooy si ci rapport Cour des comptes bi euh, gis nañ ne def ñu diggoon que dina am reddition des comptes maanaam ku askan bi wóolu jox la alalu mbooloo danañ la laaj nga joxe expliquer fan nga jaarale gestion bi euh, wante bu ñu gisee déjà CREI nu mu doxee euh, ñaari mbir ñoo ci tey suñu xel euh, bu ci njëkk waxuma sax aspe wu procédure bi mais daanaka reddition de comptes bi dafa wëlbatiku nekk règlement de comptes kooku benn taxaw seetlu bi nga xam ne Sénégalais bu ci nekk mën na ko defal boppam bu ñu paree ci reddition de comptes bi nga xam ne dafa nekk réglement des comptes lu koy firnaal moom mooy ñi nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne Euh, waroon nañu taxaw foofu taxawuñu fa déjà deuxièmement moom mooy ñi nga xam ne tuddoon na nañ leen ci moom ci boppam moo taxaw xool askan bi ci ay bët nee leen maa ci teg suma conc am na ñi nga xam ne loolu maanaam daanaka benn message subliminal la am na ay adversaires politiques yi nga xam ne daanaka dañu taxawoon pour noonu ak moom foofu téye na leen wañ leen ba daanaka dañu mujj a jébbalu ci moom. loolu nag dafa méngoowul pour laaj bi est-ce que ndax askan bi ñoom dañu juum man dama jàpp ni déjà san yegg ci rapport Cour de comptes bi déjà foofu rek askan bi déjà avant première mandat bi di jeex. Mhm. gisoon nañ ne lépp li nga xam ne moom la ñu woote woon ba tax ay nit gëm ko ba ñàkk ci seen bakkan daanaka safaan ba lañu gis. Sénégalais yi nañ. léegi nag reddition des cours de compte bi rapport yi ñëpp gis nañ ko du lu bees du guléet wante euh, donc boo ko xoolee président daanaka euh, ay critères politique lay yóbbu mhm. parce que euh, déjà procureur gaaw na ci woon it wala mu dóor la mandat judiciaire mandat de dépôt mhm. mais daanaka boo xoolee nii daa am lu tax mu tënku peut ci waxtaan bi dinañ ciy dugg. incha allah tey di met Xadi ma lay nuyu bu baax a baax. di nuyu ñi seetaan di faatu Fatou Abdou di nuyu suñu gan am mbégte dalalaat ko ci plateau bi alors maître euh, ñetti rapport yu tegloo est-ce que au nom de la bonne gouvernance xel nangu na ko ñu tegleendoo ñetti rapport génne ko expliquer comme quoi que ni dañu manqué bras. waaw euh, loolu du lay parce que administration wu Sénégal bi dafa bokk ci administration yi nga xam ne ci Afrique noire. ñoom lañ ci njëkk tàggat parce que daanaka AOF yi la ñu doon former cadre yi donc même ba Sénégal moomee boppam bokkuñu ci catégorie yu dëkk yi nga xam ne des fois euh, dañuy am mbir mi nga xam ne war nañu ko song mais du ñu am compétence yi ressources humaines yi c'est-à-dire dañu am volonté politique mais du ñu am ressources humaines dama bokk nañu boo xoolee université Cheikh Anta xool Saint-Louis la fay jënn ci ay nit déjà rek bu ñu leen mobiliser woon waxuma la Cour des comptes mais mën nañu moderniser suñu administration bi. donc mbirum bras moom loolu lañ ko teg fële. léegi dañuy décider ne du ñu topp kenn après bu ñu décider ne du ñu topp kenn dañuy wut lay bi nga xam ne moom la ñuy jox askan bi. wante askan bi foog ñu demee seen xel xam nañ ne mbir mi li leen tënk leneen la. nekkul ay ñàkkul bras. finalement est-ce qu'il y du sérieux ci li ci ci ci président ñu génneel ko ay ay rapport yoo xamante ne ni dafa leer naññ parce que bu ñu jëlee exemple ci xalifa Sall ab rapport moo ñëwoon euh, jébbal ni am na lu xew mairie Dakar yàggul dara ñu gis li fa xew pourquoi président Macky Sall ci wàllu wi ni mu doxale neneen est-ce que ñu wax ni manque de sérieux am na ci. Euh, man jàppewu ko sax ne bon manque de sérieux la dama jàpp ni rek euh, maanaam dossier yooyu. Euh, executif bi daf koy utiliser comme benn jumtuwaay bi nga xam ne mën na ko yëngal pour dóor adversaire politique wala xoqatal ko wala ñenn yi nga xam ne ñu ngi jéem a gàllankoor seen action ñu wañ seen loxo jaarale leen fi ngeen bëgg a jaar hmm. lu koy firdaal moom mooy rapport yooyu comme ni nga ko waxee du guléet euh, Nafi Ngom Keïta ñëpp gis nañ ci yan anam lañ ko tàbboon 2012 Macky Sall ci institution yu mu njëkk sanc ci la nag bokkoon ne reddition de comptes bonne gouvernance maa ngi fàttaliku ni Macky Sall lu tax sénégalais yi lu nekkoon seen su engagement ñëpp ñi nga xam ne ñoo ko ci jàppale woon dañu xooloon dëkk bi fu mu toll ñu gëmloo askan bi que Abdoulaye Wade daf fi bëgg a bàyyi doomam et que doomam day pasar pasare xaalisu askan bi donc finalement yaakaar bu ñu amoon ci moom dañu ko daanaka dama jàpp ni dafa nekk yaakaar bu tas mais comme nu ma koy faral di waxee ci nasaraan c'est un espoir déçu mais aussi c'est une promesse trahie mhm. parce que lépp li nga xam ne diggoo woon na ko ci askan bi boo xoolee ci nu muy doxanee safaan ba lañ fa gis mhm. loolu nag dafa war a tax sénégalais yi aussi delloo si seen xel xool est-ce que ci yan alam la ñu war a tabbee seen i leader très important Fatou Abdou <coughs> voilà la Khady maa lay jaajëfal euh, euh, gis nañu of nag ak euh, mbiru chantier yu ak ni nga xam ne moom la ñu fi traduire Idrissa Seck yaa ngi wax sànq ne règlement de compte la mais bu ñu gisee président Macky saal est-ce que lu épée de Damoclès la teg sax ci ñenn ñi nga xam ne ñi ngi nekk ak moom wan leen ne bu n'avez pas le droit de dire mot wala waru amuleen sañ-sañ def lu dul li ma teg ci sama conc wala ñenn ñi nga xam ne dañ leen épinglé ba pare terewul mu jox leen ay responsabilités yu gën fort waaw mais loolu nag moo warta am xam nga institution administration. ndax noonu nga ko gisee d'abord. waaw une euh, question waaw gis-gis boobu maag yow ko bokk ak ci millions yi question la man. question la man dama ciy tontu tontu bu leer damay jaar ci digg bi. Mhm. puus lu tax ma la koy wax parce que dama am li nga xam ne mën na ko firnaal. Mhm. firna bu njëkk bi moom mooy comme ni ma la waxee euh, boo xoolee administration ci boppam parce que jàpp nañ ni OFNAC wala corps de contrôle état bi ay IGE. daanaka suñuy fonctionnaires yi nga xam ne ñu gën a xarañ lañ ci anam yi nga xam ne noonu lañ leen di tànnee mais ci anam yi nga xam ne ñoom noonu lañ leen tàggatee pour ñu mën di saytu mbirum Sénégal maa ngi fàttaliku ni 1962 déjà ba ñuy sanc corps boobu li taxoon mu jóg fii ci Sénégal moo nekkoon jéem a nemmeeku suñu administration xool yan fonctionnaires yi nga xam ne ñoo fi nekk di mbuxum ñu génnee leen loolu moo nekkoon éthique bi nga xam ne moo ko sancoon philosophie bi boo xoolee ci ni ko Macky Sall di doxee dafa ko dévoyé comme lu ma la wax parce que euh, déjà principe bu ko njëkk a laal mooy neutralité administration ñaar la ñaari pàcc la pacc bu njëkk mooy neutralité dafay tëddee njaxanaay c'est-à-dire bu ñu xool Samba wala Demba wala opposant wala ku far mais aussi dafa am benn impartialité ci rapport bi boo xoolee tey Nafi Ngom Keïta amul lenn li nga xam ne Euh, yekkuñu ko fi. Mhm. te pourtant moom lan la def deful dara lu nekk tam nañ ko ko dafa ñëw nekk au fonctionnaire bu xarañ ñu wóolu ko tabb ko ne ko defal sa liggéey mu def liggéeyam ci anam yi nga xam ne ak ci ponk yi nga xam ne noonu la ko yoon lalee tënk ko ko jébbal ay conclusion mais mu nekk ay conclusion yi nga xam ne day déranger mhm. donc léegi ñoom ñu ne comme conclusion yi dafa déranger léegi dañu inverser logique yi maanaam ka nga xam ne deful lu dul am yéene parce que dafa ñëw waat ne man dinaa def suma liggéey ci charte yi ñu ko dërlee moom amul lenn lu mu ciy wut politikul du opposant ñoom ñoo ko tànnoon ñu ñëw di ko tam ça veut dire y a un problème alors gis nañu également rapport Transparency bu 2019 ñu gis ni que malgré organes yi ñu am yëpp bu Sénégal mu ngi continuer di bokk ci euh, réew yi gën a am ko wàllub corruption tey lan moo mën expliquer loolu. lu ko expliquer mooy lu ñu fi wax ci tënk mooy ñàkkum volonté politique. Mhm. c'est-à-dire ñàkk a méngoo entre lu ñuy woote ak lu ñuy doxale parce que euh, discours bi dafa am mu am pratique bi. pratique bi moom mooy lan comme ni ma ko waxee euh, boo xoolee lu rapport Transparency International bi wax dans le monde que 66e place lañu am que boo xoolee ñu ngi ci zone rouge bi depuis 2016 parce que tout simplement dafa stagné wax nga ko ñetti at rapport génnul donc 2019 ci saytu yu ñu def daanaka dañuy gis ne Sénégal ñu ngi continuer di lal mbuxum ñuy organiser ay colloques naan nan la ñuy def ak yan jumtuwaay la ñu war a utiliser ba xeex mbuxum mais mbuxum mi ci seen i bët ak ci seen i biir lay amee xam nañ exactement ñan la Cour des comptes parce que nekkul invention ay fonctionnaires ñooy ñëw xëy enquête jaarale ko ci yoon jébbal ay rapport rapport yooyu bu amee léegi nag président ci boppam moom day ragal a déclencher parce que aussi seen biir la seen i biir la donc loolu rek moo ko téye ça veut dire que ci boppam am na ñoom ci seen bopp sax dañoo tënkuwante seen biir loolu rek mooy expliquer lool